مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغني أبو باخ ينغي خمني ينغي توب تي أهل القرآن بيكم ولا ينغي توب تي كنت يتبي أهل القرآن ولا لامزو دي كورا سين بوك أبو طه محمد علي نغي مولين نيو تي نيواتك ينكي سين جوتاي بيين تامو دي جوتاي بورتي للقرآن ترتيلا دي جوتاي بو خمني دانيو أند دي تي جانغت lenn ci règle tajwid yi qawaidu tajwid te sukkandiku ci téere boobu ñuy wax tuhfatul atfal li cheikhina suleyman al jamzuri rahimahullah sunu jotaay bi wees ñu ngi taxawe woon ci njeextalu buntub ahkam al mim as saakina ñu war a dugg ci bunt bi ci topp di xukmu laami al wa laamil fiil xukmu laami al wa laamin fial atteb laamu al ci alqur'an ak atteb laamu al mooy laam gi nekk ci al at taarifiya xam ne ci asmaa yi lay dugg laam googi dafa am ay att ci alqur'an laamul fiali mooy laam goo xam ni ci fi'l la nek manam baat bi mu nekk ci alquran du ism du harf waye fi'l la mom tamit dinañ gis ay atem ci buntu bi borom tere bi wax ni lilami alhalani qabla alahrufi axrufi ulahuma idhaaruha faltaarifi qabla arbain ma ashratin xud cilmahu min ibgi xajjaka wa xaf caqimahu nee na al laamu al am na xaalaani yaani xukmaani laamu al am na ñaari atte ci biir alqur'an qabla al axrufi bu jiitoo al xuruf al hijaiya maanaam am na ci xuruf al hijaiya yoo xam ni bu ko laamu al jiitoo atte sàngam la am am ci yoo xam ni bu ko laamu al jiitoo atte sàngam la am di beneen bu bokkul ak ba yee amoon ulaahuma idhaaruha fal taarifi ulaahuma ba ca njëkk ci ñaari atte yooyi idhaaruha mooy idhaar laamu al feeñal laamu al cim njàngin fal taarifi da ko at at ak aggle mooy xam ko xamal li ma ni ba ca njëkk benn ñaari atte la am ñaareel mooy ba ci njëkk mooy izhaar laamu al ni ma ko ju ñëwoon sànq mooy laam gi nekk ci al at taarifiya tey dugg ci asmaa yi lu mel ni al kitaabu al baytu alladina addaaru al fiilu ak yi ni demee laam googu ñu léegi ci njalbeen gi hamzatu wasl moo fa ànd ak laam saakina ñoom ñaar ñu ànd di al at taarifiya laam googi lañ jublu ci laamu al dina ñëw ci alquran yor atteb izhaar nga xam dañ koy jàng mu leer naññ nga dégg sukuunug laam gi waaye dina ñëw ci alquran yor atteb idgaam nga xam ni laam gi dañ koy dugal ci xarafa ca topp ñaari misaal rekk ci ñaari at yooyu bi ma nee albaytu danga ngaa dégg sukuunug laam gi waaye bu ma nee addaaru addaaru déggoo fag laam dama jóge ci a hamzatu wasl gi ma fatha rek daanu ci daal ga ñu shadda ana laam nga dañ koo idgham ci biir daal gi moo tax daal gi shadda kon ñaari at yooyu la am kañ lay am atab izhaar ak kañ lay am attib idgham moo tax bi mu ne ulahuma idharuha fal taarifi daa di nag lim xaraf yi nga xam ni bu ñu toppee ci al at taarifiya laamu al goog yi attib idhar lay yore wax seenub lim waaye daa di leen wax ñoom it lim leen ñoom jëmmi xaraf yi mu ne qabla arbain ma ashratin xud ilmahu min ibgi xajjaka wa xaf aqimahu bu fekke ni lamu al ñëw na jiitu fukk ak ñent xaraf yi ñuy waja wax qabl arbain ma asharatin manam bu jito ñent yu yu yu toftalu ci fuk di fuk ak ñent xaraf yo xamni khudh xud ilmahu ne na jëlal xam-xamu xaraf yooyu ci baatu ibri wa khaf aqimahu ibri wa khaf aqimahu ibri xajjaka waxaf aqimahu fukki xaraf ñeent ñoo composé phrase boobu ibaara jooji ibri ñett xajjaka yeneen ñett muy kon juróom ñaar euh, juróom benn kon waxaf yeneen ñett di juróom ñeent aqimahu juróom bu fekk see juróom ñeent muy fukk ak ñeent kon fukk ak ñeent xaraf yooyu nga xam ni ñoom ñoo composé ibaarab ibri xajjaka waxaf aqimahu ñooy xuruful idhaar ci buntub laamu al saa boo gisee ismu joo xam ne benn ci xaraf yooyu la tàmbale bu ko al jiito laam googu nekk ci al gi dañ koy idhaar xukmul idhaar la yore attab idhaar maanaam sukkunug laam gi day feeñ ci wax dañ koy jàng ba mu leer nañ loolu yi des naa joxe misaal ci xaraf yépp bu ñëwee ci hamza ma a joxe misaalu al ibil al ibil wala al iman al iman laam gi ci al gi leer na nañ daal di feeñ lu mel ni baa mën nañ ci jox misaalu al bay al bay baa ug bay moo tax ñu idhaar laamu al ñu jàng ko mu leer al ngay wax mu leer nañ bu dee ci xëyin lu mel ni hal ataaka xadiithul gaashiya hal ataaka xadiithul gaashiya maanaam al gaashiya al day leer ndax xarful xëyin gi ci topp moo tax bu dee lu mel ni ci xaa lu mel ni alxaaqo al al day leer ndax lan xaa gi ci topp بديتي حرف الجيم لملني الجنة الجنة لامو الجدلر نني نخ جيم الجنة جي توب بديتي كاف لملني الكعبة الكعبة كاف جي توب شي ال موتخ دني إظهار لامو الجي دلر نني نخ الكاف من حروفي izhaari laami al bu dee waaw lu mel ni alwaduud alwaduud al day leer ndax waawug waduud bu dee ci xarfu alxaa lu mel ni alxabiir alxabiir al gi day leer laam gi ci al gi ndax xaa moo ci topp te ci xarfu xuruful izhaar la bokk bu dee xarful faa lu mel ni alfajr walfajr والفجر لام الف في داي لير نخ توب بودي عين لملني والعاديات والعاديات والعاديات لام الجي داي لير ناني نخ عينك عاديات مو تي توب تعين دا بوك حروف الاظهار تي باب لامي ال بودي ملني قاف lu mel ni alqamar iqtarabat issaatu wanshaqa alqamar alqamar al day leer ndax lan qaaf moo ci topp lu mel ni yaa alyaqiin wacbud rabbaka xatta yatiyaka alyaqiin alyaqiin day leer ndax yàgg ci topp min xurufi idhaari laami al miim lu mel ni almajid المجيد laam gi day leer ndax miim gi haa lu mel ni alhuda alhuda day leer nañ kon gis nañu fukki xaraf yoo ak ñeent bu ci nekk am nañ ci misaal te misaal mi buñ ko waxee ñu dégg dañoo gis ni laam gi nekk ci al gi dafa leer ndax benn ci fukki xaraf ak ñeent yi ibri xajjaka waxaf aqimahu moo ci topp kon saa boo xam ni am nañ laam am nañ al ci alquran al googu ci eh, gi ànd ak hamzat wasl ak eh, ak laam ak laam gu sukun al googi benn ci xaraf yu topp ci bul sikki sàkk la xaraf yooyu xaraf yi al la xaraf la kon laam gi ci al dañ koy idhaar atte yore ñaareelu atte ci buntub laamu al nee na thanihima idgaamuha fi arbain wa ashratin aydan wa ramzuha faci طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ثانيهما ñaareelu atte ba ca ñaari atte yi laamu al am idghaamuha mooy idgham laamu al gi ci xaraf wa ci topp kañ nañ koy def ci ñaat xaraf mu ni fii arbain wa aydan ba tey moom it ci fukki xaraf ak ñeent ndax al xuruf al hijaayee ñaar fukk ak juróom-ñett la bu fekkee ni idhaaru al idhaar jël na fukk ak ñeent yi ci laamu al fukk ak ci des yépp la idgham di jël ndax ñoom ñaar ñoo ko séddoo moo tax mu ni fii arbain wa aydan waram zuha tënkuk xaraf yooyu yi fa'i jàpp ko mokkal ko kon bayt bi ci topp moo ci la tënk xuruufu idgham laamu al nga xam ne xaraf yooyu yi saa bu ñu toppee ci laamu al ci alquran laamu al gi laam gu sukun gi ci al dañ koy dugal ci xaraf woowu ci topp baytu boobu fukki baat la ak ñeent baat bu ci nekk xarafu wa ko wa ci njëkk xarafu idgham la ci bunt bi tëb thumma sil ruhman tafuz dëf dha naam da su a dhannin zur sharifan lil karab bu ñu ko taqantelee par xaraf mooy attaa ak athaa assaad arraa attaa الضاد الذال النون الدال الضاء الزاي الشين اللام fekk xaraf yooyu ñeent moom la junj ni ñooy xuruufu al idgham ci buntub laamu al mënees na ci joxe misaal comme nañ defoon ca moromam yee gis ni moom saa bu ñëwee rek incha allah topp ci laamu al ñoom laamu al ga dañ koy idgham lu mel ni at taa mën nañ ci jox misaal lu mel ni attaamma attaamma da ngaa jóge ci hamzatu wasli gi nga fatxa rek dali ci taaga sedde ko ana laam gi nekkoon ci diggante bi dang ko koo idgaam ci taa gi ndax lan taa xarfu idgaam la ci baabu al laam wala laami al moo tax kenn du wax foofu al tamma du wax al waaye at at tamma at tamma kadalika athaa mën nañ cee jël misaalit lu mel ni athamaraat athamaraat min athamaraat kenn du wax min althamaraat ndax boobaa laam gi da nga ko idhaar te saa xarfu idgham la ci bunt bi kon athamaraat laam gi dañ ko idgham ci taag gi ma fàttali leen ni idgham mooy jël xaraf dugal ko ci xaraf yi ci kanamam kon fii laam gi la ñuy jël dugal ko ci xaraf yi ci kanamam ci xaraf yi tëb sa masir rahman ba mu jeex buñ joxe misaal tamit ci xarafa ci def di assaad lu mel ne assiraat ihdina assiraat almustaqim ihdina assiraat almustaqim assiraat laamu al gi dañ ko idgham ci saad gi raa الرحمن الرحمن لام الدنكو إدغام تي راء الرحمن تاء التكاثر التكاثر لام الدنكو إدغام تي تاءو تكاثر ضاد لمن الضالين ولا الضالين لام الدنكو إدغام تي ضادو ضالين الذال الذاكرين الذاكرين لام الق دنجو ادغام تذالو ذاكرين النون لملني النعمة ولا الناس لام الق دنجو ادغام تي نون نعمة اك نون ناس ولا الدال لملني الدين مالك يوم الدين يوم الدين دوخ يوم ال ويوم الدين ana laamu alga da ko koy ci daalu diin kadalika siin lu mel ni assamaa assamaa da jóge ci hamzatu wasl gi rek dali ci siin nga shadda ko ndax lan da dugal laam gi ci biiram da ko ca idram kadalika lu mel ni addaanniina billah azzanniina billah doo wax alzanniina azzanniina lu tax mooy laam gi da koy idgham ci daa gi daa xarfu idgham la ci buntub laam wala laamu al kadalika zaay lu mel ni azzaytuun da ngay idgham zaay gi laam gi ci zaay gi الزيتون كذلك الشين lu mel ni الشمس الشمس laamu al gi da nga koy idgham ci shiinu shams ndax shiin xarfu idgham la ci laamu al kadalika laam moom it ci boppam lu mel ni al layl wal layli kenn wax wal wal layli maanaam laam gu njëkk do ki wallay li ngay wax gennuk laam moo fay nekk gu ñu sadda wallay li kon bu ñu xoolee dañuy gis ni laamu al ci ñaar yooyu la seddali ko idhaar mooy bu ci fukk ak ñeenti xaraf toppee idgham mooy bu ci yeneen fukk ak ñeenti xaraf toppee borom téere bi teg ci ni wa laamulu la sammiha qamriya wa laamul uxra sammiha shafiya laam gu njëkk gi ñu idgaam tudde ko laam qamariya laamug ñaareel gi gi ñu idgaam tudde ko laam shamsiya lu tax ñu tudde leen ko ñaari wax dikk na am na ñu ne comme que alqamar qamar bu ko laam jiitoo eh, laam googu dañ ko izhaar ñu jël baat boobu mu wutu fi yeneen yi ci des yëpp a achams tamit kazalika noonu am ñuy déedéet dañ koo ko bi ci chams ak xamar jant beeg weer wi ndax jant bi bu génnee day nëbb biddéew yi jant bi bu génnee day nëbb biddéew yi xaraf yi ñu tudd leen xuruf chamsiya bu ñu génnee rek dañuy nëbb laam al xuruf chamsiya xaraf yi tax ñuy idgham bu ñu ñëwee rek dañuy nëbb laam dañuy jël laam dugal ko ndax jant bi bu nee tay ci bëccëg kenn du gisati biddéew kon ja xaraf yi lañu ñu misaale bi jant bi laam gi ñu misaale ko biddéew bu dee yeneen yi xaraf yi ñu misaale ko weer laam gi biddéew weer wi bu génnee guddi day leeralaale biddéew yi moo tax xaraf yooyu bu ñu toppee ci eh, al da gis ni laamu al gi day leer moo tax ñu tudd leen xamariya moo tax mu ne wa laamul uulaa sammihaa qamariya laam gu njëkk gi ñu idhaar tudde ko laam qamariya xuruf yooyu tudd al xuruful qamariya laam gu ñaareel gi ñuy idgham tudde ko shamsiya xuruf yooyu tudd al xurufu shamsiya mooy wa laamul uxra sammiha shafiya seen mbokk la woon Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ci seen jotaayu warattil al Quran tartila ngeen di ko suivre ci ahlul quran point com wala ci compte youtube yi ahlul quran wala la maison du coran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله الله الله الله الله